tous les vendredis. oui euh, ci réveil voilà. en tout plaisir partagé namoon naa la trop ah yàgg. Euh, euh, gëj a gëj a gëj a bi jàkkaarloo bi gis nañ ko. namoon naa la Cheikh Tidiane da nga fi vient tout suite léegi léegi nee moom mu ngi ci yoon bi xam naa ne il est un peu coincé par les embouteillages mais dinañu waxtaan bi incha allah. Mhm. alors Moustapha ñu fas yéene waxtaanee nag ñetti ñetti ñetti pàcc mu doon actualité boo xamante ne nii diirub ñaari semaine ñu ngi koy waxtaanee bokk na ci wàllu insécurité di ñàkkum kaaraange gi ñu nemmeeku fi ci réewum Sénégal jamono ji sax génn di dox fi mu toll nii doon sénégalais ndax euh, da ngay dégg ay balu fetal ak ah, ay jamati paakaak ñoo doon ay mbir yoo xamante ne nii doon na lu doy waar loo xam ne faaw ñu statuer ci waxtaan ci quand même mën nañu waxtaanee également livre blanc bi nga xamante ne nii démb waa Benno Bokk Yaakaar génnee nañu ko pour kan la pour lan la ak pour naka lañu ko euh, defee ak fan lañu ko jëmale loolu aussi waras na ko mën a waxtaanee waaye tëjee ko ak euh, mbirub assemblée nationale dissolution wu ñaari institution yi nga xam ne jàpp nañ ne c'est des institutions budgétivores loolu itamit dinañ ko waxtaanee tuer ci ñàkkum kaaraange bokk naa ne foog naa ne bokk na ni sujet bi gën a askan bi gën a ci ñaari ay bës yi ko gën a attisé nag bokk na ci faatu ba artiste bile di Aziz Dabala ak euh, Waly Gano bi ñu fekk ci seen biir appartement jam leen ay paaka ni ku tim xar mu doon situation boo xam ne métti na loolu waaye la ca toftalu itamit jéggi na dayo parce que mënuñu cee teg deux jours jàpp trois jours te dégguñu ku ñu rey faat ko dugal ko ci ab rigol wala ku ñu rendi wala démb sax ka fekk ci biir këram balu fetal bi ci mujj également di fii ci Grand Yoff ab taximan bu taxaw di liggéey liggéeyam nga dóor ko balu fetal ba mu ñàkk bakkanam lan lañu lan la ñuy xaar ci autorité yi ci seen insécurité yu métti yi ñuy dund man su yaakaar naa ne li eh, jërë njëkk waxtaane mooy souvent bu ñuy wax ci insécurité eh, da ngay dégg ñu ne recrudescence de cas d'agression mhm. wala ñu ne li am nii mësu fee am Euh, dama yaakaar ne euh, dañu war a def attention d'abord ci terme yi ñuy utiliser pour qualifier situation bi nga xam ne moom lañ nekk di pour ko ma koy wax euh, booy wax ci wàllu sécurité en tout cas loolu laay dégg spécialiste di ko wax mhm. souvent dafa am li nga xam ne mooy mooy les faits ak li nga xam ne ça relève du domaine de la perception xam nga Sénégal fekk fi nit ci këram faat ko du lu bees mhm. nit génn di liggéey ñàkk kanam ci yoon wi du lu bees loolu loolu Sénégal dafay am di fi amati dafa am période yoo xam ne day jékki-jékki dootoo ko dégg. <laughs> ñu jékki-jékki yenn période yi mu mel ne lu dellusiwaat ba jaaxal nit ñi. mais li nga xam ne moo jar a wax te nga wax ko léegi Aïcha mooy constat bi ñu def mooy jamono ji sénégalais boo laaj dafay am perception que ni dafay dund ci insécurité. te loolu li ko waral mooy. cas d'agression ak meurtre yi nga xam ne mi ngi am mais également la médiatisation bi nga xam ne moom mooy topp loolu léeg léegi su fekkee ne dañu agressé nit wala ñu rey ko c'est des choses yoo xam ne nit ñi dañ koy dund pratiquement en direct euh, ak na enquête bay demee nañ koy waxee nañ ko faate yëpp et plus grave encore euh, li nga xam ne moom la enquêteurs yi def muy seen liggéey muy di enquêter pour xam kan moo faata kan moo faatul souvent li liñ ci wax yëpp ci mbedd mi nga koy fekk. muy lu garaaw beneen bi te yaakaar naa ne mooy li gën a garaawati. Mm-hmm. mooy loolu nekkatul liggéeyu journaliste yi mais liggéeyu ñëpp la. Mm-hmm. ñuy tuddee influenceur ñuy tuddee tiktokeur euh, euh, peu importe ku ci nekk da ngay jékki-jékki taal sa téléphone di wax lu la neex parfois ils disent des choses yoo xam ne am na. mais très souvent ils disent des choses yoo xam ne soo laajee enquêteurs yi nga xam ne ñoom ñoo dossier bi di ci enquête c' est très loin de la vérité yooyu ça pose un sérieux problème mais li nga xam ne moo am solo ay Aïcha mooy tey jii ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal jëlatul nga yeewu fajar pour nekk ci insécurité jëlatul ngay guddee wàcc pour nekk ci insécurité pourquoi parce que bëccëgu ndara kàmm ñi ngi agressé nit ñi bëccëgu ndara kàmm oto ngi départ fii mm-hmm. mbëkk beneen oto ci autoroute bi mu daanu ay nit la ci ay gaañu gaañu yooyu yëpp insécurité la. Mhm. li nga xam ne mooy insécurité bi nekkoon ci tali bi ñu koy coow. ba ja ba tax gouvernement bi ñëpp mobilisé wu. Euh, ñuy dal ci kaw chauffeurs yi euh, naan euh, nañu defaraat transport nañu nangam ak nangam. Mhm. mais de la même manière insécurité routière boobu. da nga ciy boole finalement finalement yeneen mm-hmm. cas d'insécurité yu am ci réew mi te bokk na ci li nga tudd saax muy agression yu bëree bëri mm-hmm. li nga xam ne nag moo ci war a nekk responsabilité autorité yi te su ma nee autorité yi mooy ñii nga xam ne ñoom lañ fi fal yees mm-hmm. responsabilité bu mag a mag a mag la ñu am ci li nga xam ne mooy xew ci réew mi pourquoi parce que soxlawul nga def un an deux ans trois ans ci pouvoir pour mën a sécuriser ndakaaru sécuriser ndakaaru du xaar sécuriser Ndakaaru ak li ko wër c'est pas un projet à long terme mm-hmm. dafa bokk ci urgence yi réew mi amul loo xam ne dañ ciy toog di ko xaar te li tax mu gën a amati solo mooy ki nga xam ne actuellement mooy le ministre de l'intérieur muy le général Jean-Baptiste Tine mm-hmm. bi ñu ko falee amul benn sénégalais en tout cas ils sont rares kon mm-hmm. boo xam ne rafetluwul la fait que ñu tànn le général Jean-Baptiste Tine confier ko le ministère de l'intérieur pourquoi parce que jaar-jaaram may na ko man koo yor mais également nit la koo xam ne li ñuy xaar ci ministre de l'intérieur mën nañ ko amee ci moom mooy xam na wàllu sécurité parce que jiite na gendarmerie. Mhm. ay ati at mhm. donc à partir de cet instant là su fekkee dafa am ay agression ci réew mi mënoo ne ku ñu fi agressé rek gouvernement mooy responsable. Mhm. loolu mënta nekk parce que dangay dégg ñu ne la nit dañ koo fekk ci biir appartement bu mu tëj nekk fa ak njaboota wala nekk fa ak xaritam wala nekk fa ak keneen. Mhm. ay nit ñëw fëgg ko mu tijji leen ñu faat ko. Mhm. et souvent da ngay dégg ñu ne la ñi ko faat c'est dans l'entourage proche. Mhm. xam nga loolu day jafe pour un gouvernement nga dem dans chaque appartement de Dakar wala dans chaque village de Dakar nga teg fa benn alkaati buy xool ñan ñooy dugg ak ñan ñooy génn mënul nekk. Mhm. mais li nga xam ne moo mën a nekk Aïcha. Mhm. mooy wax nga sànq ne waaju ju dóor bal démb ci Géejawaay mhm. wax nga sànq ne ku ñu dóor bal fii ci Grand Yoff ak des cas comme ça gis nga yooyu bu amee responsabilité le guvernement war jël ba mu mat sëkk xam nga responsable lu ci jiitu mooy nettoyer Dakar. yàgg na ñu naan. Euh, nu ñu koy waxee sax marchand ambulant yi euh, dañ war a fii dañu war a jóge fii mais li gën a urgent pour man mooy nettoyer Dakar wala boog certains endroits de dakaar parce que mënoo comprendre Aïcha Diakhaté hmm. ñu ne la y a des endroits de Dakar yoo xam ne c'est pratiquement des zone de non droit hmm. cest à nit mën na agressé fu ko neex bu duggee foofu jeex na kenn mën dutu ko dara démb rek wala bërki démb am na ko démb am na ku may woo di ma wax ne boo demee fii ñuy euh, marché Sandaga bi ñu ko daaneelee di ko tabaxaat mhm. am na benn euh, coin boo xam ne bëccëg nga fay jaar gis ay nit nekk fa yoo xam ne tu as l'impression que ñi ñoom kenn lijjantiwul seeni mbir fa fu fu nekk la ñuy jógee ci dakaar nekk foofu mais yooyu c'est c'est au gouvernement de au ministre de l'intérieur de prendre ses responsabilités de nettoyer zone de Dakar yi nga xam ne ay defkatu ñaawteef ñoo fa nekk di fa làqatu te ñëpp xam ko mais également sécuriser certains quartiers yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne kenn ñëw fa dox yenn heures yi <laughs> am na quartier yoo xam ne kenn ñëw fa dox yenn heures yi man mon problème mooy on a fait des commissariats de de de, de proximité dans certains coins de de de, de, de Dakar mais pour man périodiquement dafay laaj ñu génne alkaati yi ak gendarme yi yabal leen ci yenn quartier wu Dakar yi ñu nettoyé ko. te loolu Moustapha war na mën nekk leen. dippee sax amul war na mën nekk lu mën ñoo leen dippee sax zone criminogène. mais bien sûr y a des de Dakar. Mm-hmm. xam nga. wax ci télé ku rajo dafa jafe. Mhm. parce que su ma tuddee ne quartier sàngam. am na ñoo xam ne ñu fa dëkk. Mhm. te agressé wu ñu kenn. gaañu kenn ñu ngi dund ci jàmm ak salaam. mais ñëpp xam nañ ne y a de Dakar yow doo fa dem yenn heures yi ma dem ba du fa dem yenn heures yi man du fa dem yenn heures yi mais yooyu alkaati yi ak gendarmerie ngay mobiliser. Mhm. pour ñu dem ci quartier yooyu sécuriser ko nettoyer ko xam nga Nicolas Sarkozy bi mu nekkee président wu France. africaine ñoo fay nekk maghrébien yeeg yooyu quoi. mu waxoon fa benn wax boo xam ne ça avait choqué tout le monde daf ne je vais nettoyer ces quartiers aux crachers je noonu la ko waxee woon. Mm-hmm. mais je suis désolé de le dire comme ça mais y a des quartiers de Dakar Mademba il faut nécessairement. nettoyé ko et su ma nee nettoyé ko waxuma tooni mbalit. Mm-hmm. mooy jëlee fa ña fa ne. Mm-hmm. doxal ci yenn quartier wu banlieue bi mais da nga gis ay dëkkuwaay yoo xam ne mais dana leer ne fii ñi fi dëkk ñu dara lu luñ def luwul bu guddee ñu génn uh-huh. suñu génnee fu ñu dem di dogale jigéen ñi nga xam ne ñoo jugee xew takk or wala leneen ak leneen uh-huh. di dogale ñi nga xam ne ñooy xëy fajar di liggéey uh-huh. di dogale ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ay multi service ak yooyu ñu gis ne wàcc nañ yor xaalis ñu dalee leen yooyu un état un gouvernement doit pouvoir régler ces questions là maintenant li nga xam ne nag mooy dëkkuwaay yi parce que wax naa ko démb ubar ki démb dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñu am ndakaaru c'est tellement compliqué que ni. Mm. ñun suñu quartier yi. man ak ma demba mën nañu bokk benn immeuble xaw ma xaw ma ko. c'est comme ça na bi bokkut ak ñun ñi nga xam ne ci àll ba la ñu jóge ñun suñu quartier yi ñu dëkk. tout le monde ko connaît doomu diw baayu diw papay diw tantay diw ñoo fa dëkk mhm. mais dakaar ni ñu dëkkee il faut une organisation il faut une sensibilisation gën sensibiliser nit ñi pour ñu xam ne comme ni ma dégg benn waaye wax ko euh, ci benn élément wu Pate Mbeng sànq may dugg sama bureau mhm. euh, je crois ci journal Ablaye bopp bi benn waay mu ne euh, il faut ñu wax suñu xale yi que àdduna jaamu yàlla ak liggéeya fi ne c'est-à-dire que cette sensibilisation là dafa war a nekk mbiru chef de famille yi mhm. nekk mbiru imam yi nekk mbiru abbé nekk mbiru gouvernement bi nekk mbiru chef de quartier yi nekk mbiru ñëpp pour ñu xoox suñu xale yi clairement que ni ce qu'il voit à la télé là mhm. muy nos séries euh, ak clip vidéo yi ñu seetaan ce qu'il voit sur TikTok ce qu'il voit sur YouTube ce qu'il sur euh, Facebook ak yooyu mhm. c'est une vie virtuelle c'est pas forcément la réalité de notre vie de tous les jours yow nag boo ko gisee gis Aïcha Diakhaté ñu mag yee ko defar ko ba mu rafet dina rien contre mu toog di seetaan teleem nga yaakaar ne c'est sa vie de tous les jours mais tu te trompes da nga def loo bëggul pour mel ne moom ah alors que moom melul ni ni niñ ko niñ ko tegee mhm. c'est un exemple que je donne juste oui, oui. voilà et c'est <laughs> <laughs> alors c'est justement vrai ah Aïssa Diakhaté bu wàccee day nekk beneen jigéen comme jigéen ah, ah, di sëy yor doom yor ay njaboot. loolu bien sûr la il faut il faudrait bu fi daw fan yee ci ginnaaw. <laughs> Euh, ma j'adore cette série parce que dama ko doon seetaan tout le mhm. temps. Euh, bete bete. Mhm. mais quand tu boo ko seetaanee pare nga dégg nit ñi di ko waxtaane surtout mhm. jigéen ñi nag. c'est-à-dire que tu as da ngay sentir ne jigéen ñi ñoom dugal nañ leen ci benn monde virtuel. boo xam ne xamuñu da ngay dégg ni ñuy waxee ci Mariam Sall ni ñuy waxee ci nu mu tudd. Euh, ci Dieynaba Tall ni ñuy waxee ci keneen ak keneen eh, eh, eh, dañu yaakaar ne ces fem là elles sont comme ça alors que ça c' est pas leur vie c' est des rôles qu'on leur demande de jouer buñ ci paree dañ koy simbi dem sol seen yére dund beneen dund mais yow nag su fekkee ne da koy seetaan yaakaar ne la vie c' est un que tu dois jouer mm-hmm. mais di nga agressé di nga sàcc di nga def leneen pour jéem a mel ne nit ñi c' est clair euh, euh, ngi naa ma nettoyal sa kanam mais sa fii moo tàng <laughs> da ngaa ñàkk c' <laughs> en tout cas alors euh, bon. alors man beneen point laa xam ne ni Moustapha ba tey ci insécurité bi ñu nekk bi. mais lu tax ma bëgg ñu ñu ñu taxaw si mooy Moustapha léegi arme blanche yi dafa bari trop. trop mhm. trop man mënuma comprendre yow nga nga nekk ci koñ. jékki saay gis sa arme blanche euh, gis gis doomu aadama bu ñu faat ñu ne lan moo tax ñu faat ko ñu ne arme blanche moom moo tax ñu faat ko maanaam euh, euh, pistolet mhm. te. yor gànnaay aussi dañ ko régir ci réew mi du n'importe kii moo ko war a yor. Mhm. lan moo tax affaire yi bëri bëri fii euh, euh, ci ci réew mi ba mu mel ni dañoo nekk Caraïbes wala dañoo nekk. xam nga ñaari choix moo mën a am. oui soit ñu def comme américains yi nekk ku nekk am nga droit yor fetal. nga dem wuti autorisation yor sa fetal. su ko defee dañuy dund comme ni américains yi dundee ku la bëgg rey nga rey ko mm-hmm. te loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla buñ ci yegg parce que Sénégal mm-hmm. amuñu culture boobu mm-hmm. amuñu culture du du du du yor ay ngànnaay beneen bi mooy et c'est étonnant yaa ngi wax ne ngànnaay du n'importe kii moo ko war a yor mais tey Aïcha defar l'expérience léegi suñu paree nañu demandé Pape Samba mu dem ci boutique bii ci koñ bi ne ko jaay ma paaka da koy jaay mu jël paakaam def ci poosam. lijjanti wuñu lan la koy doyee et pourtant da dégg ñu ne ci réew mi ñun fiy faat jéem paaka moo leen rey. mais est-ce que jarul ñu seetaat nan la ñuy jaayee ay ngàndaay ci suñu réew mi tey boo duggee ma xam nga maa wax boutique yi boutique gu quartier bi damay tooñ boutique gu bi rek. Mhm. mais dugal ci suñu grande surface yi. Mhm. mais da ngay gis ñu tegal la ay paaka yu lu lu forme boo bëgg. forme boo bëgg et tu prends ça tu vas à jël dem sa yoon lan nga ciy def kenn kenn lijjantiwu ko. Mhm. mais yooyu daf je crois que réflexion la laaj pour ñu xoolaat suñu politique ci wàll loolu. Mhm. est-ce que nit ki nga xam ne dafa war a arme à feu parce que arme à feu du n'importe qui moo koy yor ci dëkk bi di dox soo ko yoree sans autorisation da lay jàpp mais ñi fi yor paaka ak jaasi di dox mais amul benn autorisation bu leen di laaj. Mhm. et pourtant dañ naan la paaka ak jaasi ñi fi ñi ñi ma fi dégg faatu yu mujj yëpp. dañ leen a mais loolu moo war a tax ñu seetaat pas que mburu sax dañoo war a xool nan lañ koy jënd ci réew mi. Ah, mais fii tey euh, xoolal bu ñu jëmee korité ak tabaski mbedd moo jaar. gis xale bu góor mu yor ay dizaine de paaka. teg ko nii di dox di dem yoonam. ak di daas mais kooku il suffit mu mer ak nit rek xeex ay am. mais luñ ko war a xoolaat. est-ce que loo xam ne mën na faat bakkan tout de suite dañ ko war a bàyyi ñu koy jaay ci VDN bi di ko jaay buntu wal Walfadjri di ko jaay feneen feneen ça sa pose problème. donc am na ku ma dé mu wax ko ci réseaux sociaux yi barki dem laa ko seetaan mu ne il faut ñu xoolaat ci réew mi ni ñuy jënde paaka. mais wax na dëgg. Mhm. ni ñuy jaayee paaka ci réew mi la ñu war a xoolaat. ñu war a xoolaat exactement. man nag am na benn constat bu ma def. mooy mhm. chaque fois qu'on après grâce day mel ni criminalité c'est intéressant je, sais pas est-ce que ñuy gracier du ñu ñu war a gracier. Mm. donc. So... et et en parlant de grace d'ailleurs question d'insertion mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy faat. Mm-hmm. madame Ba. Mm-hmm. souvent bu policiers yi defee seen enquête ba ne leen nipp dañ naan la récidiviste la. oui mooy kan. Ah. mooy koo xam ne defoon na ko. dem kaso génn fa. waa jooju ñu ñu lakk keroog ca Thiès. te loolu warul kenn waru ko def. mais est-ce que man dama gis image yi ma gis ne waa ji dafa takk bracelet électronique ki ñu cest ki ñu ne moo agressé. Mhm. ba waa koñ ba jóg rey ko ba taal ko man image yi ma gis dama gis mu takk bracelet électronique c'est des images horribles d'ailleurs. Mhm. ça veut dire quoi que ni kooku yoon jàppoon na ko moom ba téye moo tax ma dem ba li nga wax mooy dëgg. Mhm. dañu war a xool ñan la ñu war a gracier ci réew mi ak ci yan condition lañ leen di gracier. Mhm. parce que gracier koo xam ne bu génnee day defaat exactement li mu defoon ça pose problème euh, kii ñu faat euh, Aziz nan nga wax. Aziz Dabala. mais parmi les gens yi ñu arrêté am na ci koo xam ne nee nañ ñun la commissariat ñun la commissariat jàpp nañ ko jàppati ko mais ça pose problème ça veut dire que ñun finalement finalement ñi nga xam ne ñooy agressé di faat c' est yoo xam ne nos services de police les connaît tey boo demee ci réew yu réew yu mag yi en tout cas ci yu bëree bari mais am na ñoo xam bu leen jàppee dañ leen fichier dañ leen fichier c'est-à-dire même bu ñu la libéré am na zone yoo xam ne amoo droit dem fa dañ leen di surveiller comme ni ñuy surveiller ku teg meew ci kaw taal wala ku teg diw ci euh, ni ñu koy waxee sax ci taal dañ leen di surveiller mais fii ma dem ba à raison da ngay jël ay ay nit yoo xam ne naan la ñii ay agresseur lañ ñii kii faat na wala kii euh, jiñoon nañ ko faat wala kii sàcc na vol avec agression vol avec violence nga jël ko gracier ko bàyyi ko mu dem xamatuñ li lu nekk nga xëy suba rek ñu ne la faat na diw. ba pare sans aucune préparation à l'insertion. mais bien sûr nit ki bu demee amul liggéey xamul amul benn qualification. Aïcha man li ma delluwaat ci du nekkoon. Aïcha li may wax du neex mais man li ma gëm. mooy kuy agressé doomu aadama di ko faat sa place newul ci réinser ré noo ko. réinsertion réinsertion sa place nga kaso. waaw malheureusement. sa place nga kaso. parce que ki ki ki ki ñu mën a defar réinsertion ré réinsertion mooy ki nga xam ne. dafa def ay délits mineurs. Mm. xale boo xam ne xàmmeegul sàcc wala yu demee noonu mën na nekk sax mag. Mm-hmm. Euh, euh, wala ku def euh, je ne sais moi fàtte tay koog yu demee noonu ñu jàpp ko aider ko pour delloo ko ci société bi. Mm. mais koo xam ne day fàtt di fàtt. ak violence le procureur bi muy qualifié Aziz Dabala ñi ko faat bi muy qualifié les faits mais il a parlé de barbarie. Ah barbarie. c'est-à-dire que yëfu bëgg ci même pas dire la moo mais ñooñu boo leen téewee mais euh, su fekkee ne am nañ ay preuve que ni ñoo ko def ñu dem ci kanamu àttekat bi àttekat bi wax ne ñii ñoo ko def amul dara lu mën a euh, tere ne defuñu ko mais ñooñu da nga leen di il faut les éliminer de la société. Mm. les éliminer de la société mooy nga téye leen définitivement. effectivement peine perpétuité loolu moo tax ñu def ko ci ci ñu def ko. Mhm. comme que suñ Sénégal gi amul peine de mort. li fi am mooy perpétuité pourquoi parce que dafa am ñoo xam dañoo jàpp ne ñii kenn mën leen recycler. Mhm. nga jàpp leen def leen ci kaso bàyyi leen fa pour protéger leen ñoom mais également protéger la société. Mhm. parce que boo leen d'ailleurs boo am na ñoo xam sax dañ naan la diw dañ ko tëj perpétuité mais mënul espérer libérer sans mu def vingt ans par exemple sans mu def vingt ans mënul espérer une libération. donc il faut nga def vingt ans ci kaso bi doog a espérer une libération mm. mais yooyu la politique pénale du nouveau gouvernement peut-être buñ ko buñ ko tegee dinañ wax qu'est-ce qu'il compte pour mm-hmm. sécuriser nit ñi mais également pour que ñii ma dem ba wax ñiy gracier ñuy génnaat di faat doomu aadama yi mu bañ a amati ci réew mi mais bien sûr ñi nga xam ne aussi nekk nañ ci kaso bi nekk fa en attente waral càmbar seen dossier